réewum Sénégal jëm na ci gouvernement bi dinañu mandat bii nga xam ne daal réewum Sénégal fi ñu toll ñu koy ŋawti ŋawtee moom la mu ca ne moo di mbir boo xam jëm na ci troisième xel xalaatul moom Macky Sall mu daal koy jëmale ci lépp loo xam ne jëm na ci fànn gu mel nga xam ne daal ñoom na tànn ngir liggéey ñoom jamono ji nag coow li dañu ko war a loo xam ne nag jëm na ci wàllu liggéey ñu daal di cay jublu bu fekkee na bi ñu ne daal ànduñu ci woon bi daal gannaaw bañ ko sampee taxawalaat ko ñi nga ne mel Macky Sall kay président kay jamono ji moo di lépp loo ko boor lépp loo xam ne jëm na ci fànn gu mel waaye itam mu nga ne ne réewum Sénégal moo ko yëkkati jëmale ko ci lépp loo xam ne jëm na ci fànn gu mel l'observateur du ñu xam ne kay gannaaw Ndiaye amaloon na ko secrétariat exécutif yéenekaay bi dañoo xamal ne moom Macky Sall balaa yàgg ndaje mu mag moo xam ne daal ndaje moom mekkee ci réewum dina ko leeral lépp loo xam ne nag jëm ne ci fànn gu mel yéenekaay bi di critique di xamal ne gouvernement bii nga xam ne daal dañu koo taxawalal gun ci réewum Sénégal waaw bëri na ñoo xam ne daal ay directeur de société la ji seenam xel dalul rawatina ñi nga xam ne nag mooy conseil yi président ñi nga xam ne daal ñoo yëngu ci lépp loo xam ne jëm ne ci wàllu mburu duñu ko lakk ci Sénégal yéenekaay bi di xamal ne mbir kay tàmbali na ndax ñoom nag jamono ji ji la ñuy ñaxtu moo di lépp loo xam ne nag jëm na ci njëgu fëriñ ji nga xam ne daal dafa cher ñoom lakkati mburu mburu la ñu yi daal di na naka la def ba andi ci ay saafara direct info di ñu xamal ne kay réewum Sénégal dañoo yaakaaroon ne jàngoro ji nga xam ne nag moom la wax ngaana jeex na ci réewum Sénégal waaye nag dem na dëkk yoo xam ne jamono ji man ngi fay gën a wullee ñaay direct info di ñu xamal ne kay dëkk bii di Kaffrine réew mi jàngoroy ngaana ja ma fay wullee ñaay